maa ngi tudd colonel Ndeye Fall am ñu may wax it général yokku grade bi Ndeye Fall nekk conseiller municipal ville de Guédiawaye nekk responsable APR fii ci Darou Salaam commune de Sam Notaire. waa jotaay bii li tax ñu woote ko dañoo jëm ci ay élection te yaakaar naa président Macky Sall li mu def ci Sénégal rafet nañu delloo ko njukkal mooy votel ko massivement. yaakaar naa kenn ku ci nekk responsable bu fi nekk danga war a jug woo say militant wax ñoom jour bi la dimanche bi ñu jëm incha allah nga xam ne ci la vote yi kenn ku ci ku ne dem voté massivement président Macky Sall pour ñu am ndam ku nekk tey lii war na la zone bu ne nag ku ne war nga wax ak say militant dimanche incha allah ñu voté le président Macky Sall mu gagné au premier waa loolu du lu ñu liggéey tey ci waa Daaru Salaam man waa Daaru Salaam dama liggéey ñoom ça fait des années ñu ànd ak man ci liggéey muy paa muy ndaw muy mag muy xale ñëpp ma jox cër ndax dama ko séq ak ñoom ci oyof ay ànd ak ñoom ci oyof. luñ ma woo muy muy lu neex wala bànneex ci koñ bi jug naa taxaw ci parce que ñoom laa am moo waral ñoom ñëpp tey ñu jug lii du liggéeyu tey liggéey la yoo xam ne at la luñ ma waxoon dañ ne man day fàll ñun de soo àndoon ak sax benn ni ma ko mën a waxee keneen muus sax ñu ànd ak yow parce que ñun loolu lañ gëm foo nekk rek fa lañ nekk daaru wax dëgg yàlla mënuma leen fay tey ba ñuy parrainage nit ñi dañu doon wër di def parrainage mais dama toog ñu nañu wootee sa koñ ñun ñëpp ñëw indi seen carte nga pare nañu loolu yaakaar naa ne du liggéeyu tey tey tey dafa am base soo bëggee baas danga koy liggéey lu yàgg nga téye sa base te man loolu laa def loolu yàgg na man a ñoom ñii yàgg nañu ndaw mag nag foo tunne Daaru Salaam foo ne Ndeye Fall nit ñi ni la xam nañ ko bu baax a baax a baax waaw loolu li ko waral mooy li ma loxo wax rek base bi li ma la wax léegi rek base bi fu ma jëm ñu fekk ma fa tey ku ma nii moom lay àndal base bi xooluñu kenn dañ naan Ndeye Fall la foo dem ñu ànd ak yow loolu kon yàgg ba may nekk grand parti laa la expliqué dama nekkoon boobu conseil municipal ville de Guédiawaye mais école 17 ak école 13 dama ko doon gagné te boobu maa ngi woon grand parti loolu continué ba léegi ñëwaat ci législative yi yàlla defaat ma ñëw APR ci laa gañewaat école 17 ak école 13 loolu lu ma liggéey la loo xam ne ëpp na quinze ans ma liggéey ko ak ñoom parce que lii li li wóor mooy say nit na nga ko téye la man la du wax kese da ngay téye say base téye say jigéen téye say jeunesse féminine téye sa jeunesse masculine man loolu laa gëm te loolu laa yàgg ak ñoom nag tey ji yaakaar naa daaru lu muy rëy rëy rëy boo génnoon daaru sax sama tur yaakaar naa egg na foo xam ne man egguma fa te loolu lépp liggéey bee ko waral waaw mooy li ma la wax nii rek ci lancement lancement laa doon def nii sax lii lépp président teeru président moo ko waral parce que man dama gëm président Macky Sall te dama ko bëgg gëm ko ndax kuy liggéey laa gëm man du ma ànd koo xam ne liggéeyul président Macky Sall li mu fi def ku moon sax yow da koy gis nekk lu ñuy laam-laamee moo tax ñu def ñuy lancement bi pré-campagne pour suba mobilisation bu rëy bi ma bëgg a defal président Macky Sall yakarna bu subaa dinañ ci ak dinañ ko gis dina ko indil lo xamni ne ko gis nit parce que maire lu la jox ci mbubu incha allah dinañ solo jigen ndaw mak ba pa dina ko indi inshallah ñu jàppale président Macky Sall tertu ko tertu bu rëy rëy rëy inshallah bu subaa waaw li xam nga ciowli mo bari mais xam nga APR mom président Macky Sall suñu parti benn bokk yakar amul amuñu amuñu violence ku ci def ciow amu ci kuy dox violence amu ci opposition bi nga xam ne ñoom dañoo gis ni kenn gis kenn wuyuwu leen amuñu nit amuñu kenn ñooy def ay violence pour yàq euh, élection yi te incha allah élection yi kenn ko yàq dañ koy voté ci jàmm ak salaam président gagné jël ndam ñu dem parce que nag opposition bi ñuy wax nag man gisuma sax seen liggéey amuñu amuñu bilan amuñu programme kenn du la ci tegal programme boo xam ni di nga mën ni lii mun nga téye lii pour voter ko man li ma gis ñu nekk ci ci chaque jour wax ko mooy loolu laa leen tuddee double VTT wax télé bi euh, mbedd mi ñoom loolu mooy seen métier télé bi tele bi ak wax président Macky Sall dafa boole noppi ak liggéey yaru kooku mooy le président des présidents et moom boobu dafa modeste waaw a bi mu accueillant dafa dafa baax président Macky Sall ku nekk sa li muy def Sénégal kon nag dañ koy jox ndam mu eggalawaat opposition bi amuñu doole man ka euh, euh, Malick Gakou bi fii la nekkoon tey bu keneen grand parti xanaa war na téye parti mais dem di wootu ci ay nit nga war a xam ne fii Guédiawaye moom amul opposition Aliou Sall fi nekk te day gagné massivement incha allah le jour du 24. waa di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm sama maire Aliou Sall di gërëm le président Macky Sall di gërëm waa way gi yëpp. di gërëm nag femmes yi ma jàppale nga xam ne tey jii ak jeunesse bi xam ne ñoo ma mën lii ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax nag ñëpp nañ génn nag man loolaa gëm incha allah dimanche 7 heures pile incha maa ngi école te bu ma fa jógee 19 heures la ñu ne victoire président Macky Sall ma jël sama kër loolu laa gëm te ci loolu laay dox